Lamin Mamadou Lamin yoneen ñëw na alamin Mamadou laa ilaha illallah ma yoneen be jar na yëngu waa yoneen ñëw na alamin adalay wayal yoneen yaay soppe yoon leen man maa la woo yoon leen ñëw na alamir Mamadou Lamir Amadou Abdoulaye Amina mooy yaayame jarna yëngu waa yoon leen ñëw na alamil mamadou lamil yoon leen ñëw laay la way la leen ma yoon leen be jar na yëngu yoon leen ñëw na alamil mamadou lamil ana ñi bëgg yaa rasulallah way la leen ma yoon leen be jar na yëngu yoon leen ñëw na alamin mamadul amin adalaay wayal yonen sa bis jombu la jar na yengo yonen ñëw na alamin mamadul amin seexu yàlla baa ngi ni ada sa bis bi jombu la man la woo yonen musawa laay amina mooy yaayame jar na yëngu waay yónneen ñëw na jërëjëf mbokku internet yi Bprod ñi ngi leen di nuyu di jaar di amaat mbégte kontaan te jàkkaarloo ak yéen mbokk yi nag tey fii ñu nekk suñu kër xarit suñu suñu jigéen suñu lépp soxna aada seexu yàlla bi ngeen xam ko ak ñun tey li yàlla def euh, mu dogal ko ci moom muy bépp jigéen boo xam ne li ngay ñaan rek mooy dund ban lay may boroom kër tey nag loolu moo am ci moom mu dégg heure ménage sama xarit bi sama jigéen bi ah, sama doom kontaan na sama xol sedd na lii rek laa la yéene woon dund ba balay maye ñu lay muur ñu ngi lay ñaanal nag sëy bi yàlla na la jig te am barke ay njaboot yu barkeel topp ci barke sëriñ Touba yow sunu nit nga suñu xarit nga ci ci ci taxawaay bi ci ci ci lépp tey nag euh, ni ma ko waxee rek reménage jib ñëpp a ngi teew mbokk xarit yeeg am di jàmm yi ñu bég lan ngay wax aouzu billahi min asheytaani rajim rabbi israh li sadri wa huwa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yasfahu xawli sëñ Mbay sam papa maa ngi lay nuyu di la ziyaar di leen jox seen wàccuwaay mhm. di leen wax ne kontaan naa lool bés boobu ma sa am ci àdduna bi ma ko te bii laa ci gën a fonk. looy wax euh, internautes yi ndax soxna aada nit ñi dañ koo xamoon rek ci muy seetal gaay ak di ñaanal gaay <laughs> ndeke am na beneen bu war a feeñ tey <laughs> muy reménage yenn clients yi nee na xanaa ñaanal da koo sango <laughs> ndax ñu bëgg jëkkër bari na de. waa ah. nee nga jox leen ci càngat yi. ñu am jëkkër ñu bëgg sëy yi bari na maa leen koy waxal. waaw incha allah. diwaan bii daal ku fi dikk jàppal ni mm-hmm. ci kàttanu yàlla bu ñu yàlla jubóolee di nga sëy ba dee. Mm-hmm. <laughs> ndax soo na ànd sëy rek ba dee la xam. ndeysaan nga am jëkkër ak euh, liggéey bi nin la xamee ndax yomb luy soppeeku. Hmm, liggéey bi dara du ci soppeeku. Mm-hmm. ki may sëyal dama nopp te dama teral. Eh. ndax lu ma neex neex na ko. <laughs> taalibe yi ñu ngi lay seetaan. Ah, waaw waaye xam nga jonge moom ci diine la bokk. dëgg sangu yaay Aïcha da ko daan wax naan ko laa xayaata fi mhm. kon nag diine amul kersa. dëgg la. Mhm. Mhm. tey lay seetaan say rak euh, wala say mag amagun loo leen di conseil samay rak ah ñaan yàlla de wax dëgg yàlla. daa bokk ci say rek. Ah. waaye dañuy wax ni lépp loo gis rek app bi jotee rek lay am. sunu borom moom li mu namm ak li muy dogal mhm. saa su ko nammee ak bis ba ak heure ba dara du ci wute mhm. mi ngi mel ni doomu aadama tey jii mhm. bépp doomu aadama booy gis su si mu war a faatoo ëllëg sunu borom bind na ko pare te du jaas mooy waral léeg-léeg nit tàggu tukki des fa wala nit ngeen toog léegi dégg ñu ni nit kat ba mu demee fee naka la yegg daal daanu daal di dee mhm. kon sunu borom daal noppi na mhm. lii daal dañ koy jël rek jox ko yàlla ndax lépp ab cëram la mhm. moom moo nam rek moom moo def moom mi ñu naan fa xaalu li maa mooy def lu ko soob lu ma bett la man mii sax wax dëgg yàlla waaw <laughs> waagaan mu ne madame nan <laughs> dañ dañ koy denc nag maa ngi koy tuub di ko jéggalu waaw. <laughs> nga wax ko lan moom mu ngi lay seetaan. kan moom monsieur waaw. ko bëggee ëpp na yàlla xam na ko. doom ji ndeke am na leneen lu mu dencoon lu ma xamul. <laughs> ndeysaan nga wax lan nag ci say bari coow yow yaay nga jàngale kat nga nit ñi dañ lay seetaan di la diglu di jariñoo sa ay message ku ne xam na ne senegal Sénégal euh, say bari na coow. divorce yi lan ngay wax xale yi lay seetaan te nekk ci biir néegu sëy ah sëñ Baye xam nga sëy moom dañ ne wamaa jaaxal naa ma waddatan warax ma mhm. kon bëgg ak yërëm bu dajee rek yaakaar naa mhm. biru bi du bëri nañuy jàppalante mhm. te fonk sëy ndax sunu borom daf ko daganal ci aras waaye it sunu borom dani moom moo bind sëy bind tas doonte gënalu ko ñun nag dañuy ñaan yàlla sëy ba dee dañuy ñaan yàlla yit ñi nga xamante ne amaguñu borom kër yàlla yombalal leen ko te ku ko am yàlla may la ngeen dund ba xataa ataanal yàqin ba dee rek dikkal leen mm, nga suur sa morom wala sa morom suul la yàlla na yeex dañuy wax ni sëy moom wax dëgg yàlla metti na mettiwul mm-hmm. soo nangoo nooy rek te oyof mm-hmm. lu dikk rek di nga ko dékku mm-hmm. lépp suñu borom dala ci jàppale mm-hmm. kàttanal la ci dooleel la ci ndax moom moom moom lépp mm-hmm. Mm-hmm. kontaan nañu suñu suñu xol sedd na waaw looy wax client yi lay seetaan da ngay ba ci kanam wala liggéey bi mu ngi continuer <laughs> ah client yi xam nga soxna Aada moom day tëdd ba xaaju guddi sax nit fëgg ko mu jóg dëgg kon wa illaa mu am borom kër borom kër goo nga xamante ni kenn gënu ko mm-hmm. koo nga xamante ni lu ko neex neex na ko wax dëgg yàlla mm-hmm. muy nit ku baax mm, nit ku am diine mm-hmm. diineem laa ko nobe nee naa ndeysaan diine diineem laa ko nobe diineem laa ko nawe ndeysaan waaw tayit xolam laa ko nobe kenn gënu ko xol kon boo sangu-sang suñ koy wax naan wa innaka la ala xuluxil azimi dama ciy gis sama borom kër macha allah <laughs> sëñ Mbaye mhm. di leen wax ni kontaan naa ci surprise bi nga xamante ni sëñ góor defal na ma ko tey waaw waaw ma bëgg ci lool sama xol sedd na ci yéen mhm. bii promédia mhm. ah sëñ buur yéen ñëpp man daa su ma limee damay juum dëgg la ak waagaan mi sama xulo waale xanaa dig ma may jàmm nag <laughs> yàgg na laa sonal de. <laughs> la wax ne yow sam papa ji tamit aw ma sa fay. wax dëgg yàlla. Mhm. di nuyu sëñ Mamour moomu moom tam di ko sant di ko gërëm. ndeysaan waaw. waa. Mhm. sëñ As borom Fatick. Mhm. sëñ Assane Kane borom Nasru Minallah. su ma limee dinaa juum te dinaa dig te bëgguma. yéen ñëpp tudd naa leen. sëñ Jibi borom Banja. <laughs> yéen ñëpp daal maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay kon bokk wa ahlu dawaan an alhamdulilah mm. wasalaamaaleykum wa rahmatullah ayca mbokk yi kontaan nañu di leen wax rek ngeen gaaw ñëw càggati am borom kër yi ñu ngi fi de <laughs> soxna maa la wax lii jigéen ñi bëgg borom kër nañ ñëw xool dama leen di àppal kay man xam ko moom du ko ñemee wax waaye man maa koy wax ku ñëw am na yum ci yor yoo xam ne bu la ko joxee boo ñibbee weer bu soobee yàlla nga dégg alxayri mais nag euh, ni nu ko ubbee lan koy tëjee rek di la ñaanal sëy bi yàlla def ci barke te may leen njaboot gu barkeel ci barke Serigne Touba yàlla mën na ko yàlla na ko def yéene nañ la ko suñu nit nga suñu jigéen nga suñu xarit nga nit kese nga nii nu lay gisee ci écran bi ku la fekk sa kër noonu nga mel te lombu loolu yombut incarné woo dara dara dara lu nekkul ci yow. loolu nag euh, jikko yu rafet la ñu ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla téye yàlla gën laa dëgëral bàyyi la ak sa borom kër sama goro nag maa ngi koy nuyu moom déggante woon nañ téléphone mu ne ma dénk naa la ko yaakaar naa ndénkaan li kon rëccut sama goro comme alxayri jib na sama jaan wàcc na kontaan naa waagaan sëñ góor ñu ngi bekk yow tam ci surprise bi nga defal soxna aada ñu ngi kontaane ñëpp am nañ mbégte jërë ngeen jëf génnal sang bi yow. Euh, yal na la yàlla jubaleeg sa borom kër. ndax dama laa bëgg moom kenn mënu koo fay. ndax sa cofeel ci man ak jàpp gi nga ma jàpp nit amul lu dul bisam. te li tax nga bëgg ma mooy tagg gi may tagg yonent bi salaay salaam moo tax nga jàpp ma bëgg ma. sama xarit bu baax bi Mbaye Diop bu Buur Géwal TV euh, nga xam ni yàlla moo dogal muy sama xarit ànd bu yàgg lan ànde moo ma nuyoole ak yow saa bu ma fi ñëwee leen naan nga defal ma ay taraanga yu bari bu nu waxee nga ne ma dama laa bëgg ndex yërënt bi ak tag ngay tag yërënt bi kon nag boo amee sa bis bu toll nii ñu la may borom kër jaadu na lu nu jàppoon ñu bàyyi ko ñëw ndax euh, sama xarit nga sama jigéen nga euh, lépp nag mi ngi mi ngi tàmbalee ci Mbaye Diop mi ak waagaan mu baax mii nga xam ni ñoom awma seen fay ndax fi nu ma àggalee ak taxaw gin may taxaw mënuma leen koo fay kon nag boo bu dee doonee say góor ñu nga jàpp leen te yàlla tax di ànd ak ñoom ngir yàlla di leen taxaw ci yu kon soo amee sa bis jaadu na luñ jàppoon bàyyi ko ñëw maa ngi lay ñaanal eh, yal na yàlla jubal sa borom kër bi tamay leen njaboot gu barkeel te ngeen yàgg.